auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla juli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu ngeen ko nuyu muy asalaamaaleykum wa taala wa tey nag ñu ngi fas yéene dugal benn dars boo xamante ne rek day jëm ci mbindu seexul xaadim sëriñ tubaa xaadim rasul muy téere boo am solo boo xamante ne moom la tuddee tasawudu sixaar euh, mu yebalu ndaw ñi ñu fas yéene ko ànd ak yéen ci version wolof bi muy nag soññe yoo xamante ne bépp jeune bu ci tënku sa yoon dina leer sa pas-pas ak sa ngëm dina dëgër te mun ngaa mucc ci fitna yi aduna te elek inshallah allah yow man xiyam di nga bok ci nga xamantene euh dinañ am aljana ci katnu sun borom señ bi di cey tambale ne yen ndaw ñi yen ne yeen ndaw ñi ma ngi leen di digal ngeen baña wotul leneen ab njub dégg ngeen sëriñ Tuubaa na képp ka nga xamante yaa ngi sab digib doole nee na sa yitte yëpp na ko def sim njub te lii ndaw ak mag yëpp ñoo ci yem ndax xam-xam bu àndut ak njub dafa mel ni comme mbaam buñ sa fuurus ak jama diisaay ba rek lay yég waaye du xam valeur ba boo amee xam-xam te anut ak njub zéro la alal sax boo ko yoree te àndut ak njub ci kasaara lay mujjee nit ki ci lépp lu mun a nekk bu ci anut ak njub rek loo du dem moo tax may far di wax ne ngëmu nit ki mënut ta dëgër mukk te anut ak njub mu ne na ngeen soxlawoo xam-xam mbokk yi ku ne xam na ne. xam lépp ba ca gën mooy xam yàlla moo tax euh, njëriñu sëriñ mooy mu xamal ay taalibeem yàlla waaye pas-pasub taalibi tamit mooy mu at ut mu jóg wuti sëriñ bu ko xamal yàlla sëriñ nag nekkul mukk ne nga jóg wër mbedd yépp loo maa jàll jox ko mu dugal ci poosam raay biiram ne dina baax dina baax kay ndax moom ak njabootam yépp ñu ngi tedd sa kaw sa alal waaye ñoom boo gestoo moom sëñ bi lan la la defal sëriñ bi mot sëriñ dëgg mooy sëriñ bi nga xamante ne day jële taalibam ci lëndëm yóbbu ko ci leer àggale taalibam ci yàlla xamal ko boromam loolu mooy sëriñ xam-xam nak ni ko señ bi waxee dafa war ni mu waree non noonu la jigen yalla yàlla do ko jaamu mu te xamuloo ko faw ñu wo faw sa pas pass yëpp nga tek ko rek ci xam borom bi subhanahu wa taala te mu jaral la lepp waye tamit mu tek ca ne seen tamit def len ko ci jang waaye ba mu waxee jàng dégg nga mu ne ak mokkal foofu nag xam-xam kenn du ko lambatu dañ koy jàng bam mu ndax nit ki bu jàngul du récité du tari moo tax booy jógee ne xam-xam lay wuti nanga nga muñ te nanga dogu na nga ca farlu xam-xam boo ko lambatoo rek mun na laa sànq sànq tamit ña nga àndal xam-xam day leer nañ moo tax nag jàngante yu bëri yi bokk na ci li nga xamante ne mooy andi coow bu bëri bi euh, ci ñenni borom xam-xam yi ndax kii day ñëw ne nii la kee ñëw ne nee la kee ñëw ne nii la fekk na lu ci ëpp dégg fa day na waar moo tax daal nit ki balaa muy jëf na xam jëf bu àndut tax xam sànkute la xam nag wax naa ne ba ca gën mooy nga xam sa borom jàng tamit di ànd ak mokkal waaye jamono ji bëri na ñoo xamante ne benn téere rek lañuy ñuy mokkal buñ lay nuyu sax dangay gis dañ lay catal loxo bi seexal seeni bopp teg seeni bopp kilifa kaala comme ni ko sëñ Abdou Lahad waxe woon si ndigg lay jóge si ndigg lay tàmbale dem ci kaw waaye benn téere rek ngay jàng koy nuyu catal sa loxo rey sa baat teg sa bop kilifa xama nga musiba amna jang moy li wër jang kenn du ko yakamte de ngay jang ba mokal wa kay mune nak te ngeen tet bere bu texe di Serigne Touba neena bepp bere bu nit ki muna tok te munu fa amé njeriñ lu ko yok ci yalla lu ko yok ci dinam neena na fa juk bepp bere bo rek waxuñ fa ak yalla ak yontibi wala njëriñ boo xamante ne mun na laa yokk rek ci diine nee na su yeboo nga jóge fa doon nag ngeen moytu béréb yi ñuy carte mariage carte mariage baaxut béréb yi ñuy sangara moytu ko baaxut bërëb yi ñuy jëwee di xasee ay nit as moytu ko baaxut béréb yi ñuy njaaloo yi ñuy fenee ñuy dajaloo topp naf su bakkan moytu ko baaxut bërëb yooyu yëpp ab julit bi gëm yàlla ak yoonteem waru faa toog waaye tamit mu ne takkoo leen ak ki dëñ mukk di jaamu yàlla moo tax mu ne fexe leen ba bu ngeen di wut sëriñ ut leen ku ragal yàlla ut leen ku xam yàlla ndax ku ragal yàlla te xam yàlla ndax ko kat te li yàlla digle rek lay nekk bu ko defee nag euh, xam naa ne fii la ñuy yemale kaddu yi incha allahu rabi ba suba rek ci kàttanu suñu borom ñu ñëw àggale dars bi ci kàttanu yàlla kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.